ok uh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bu leen nuyoo sant leen di am mbégte mu rëy te di ko seereloo sëñ Tuubaa laaj bi nga laaj nag mooy ku jug ngir jëm ci barab bu ñuy màggale xasida sëñ Tuubaa yi yan jikko la war a làmboo wala yan melokaan ya war a làmboo loolu tontu bi lu gàtt lay doon mooy lépp loo xam ne bu ñëwoon Sëñ ngi ci barab boo fay dem doo ko yubbaale moo xam melokaan la wala jëf wala wax noonu nga war a sete ca loolee boo ñëw fu ñuy màggale xasida yi ndax xasida yi ñooy ñooy sëriñ bi ndax lepp ay yeg yegam la ak ay may yu jige ci boromam jëm si ci mom bo gisee ñu wax ne alquran bu ñuy wax yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam gën duñ ko ci bolé tam mbindeef mu wàcc yi ci kaw suuf yépp yonente bi ci gën li tax duñ ci bolé alquran moy dañu japp ne alquran aw melaw la ci meloy suñu borom bi ndax ay waxam la moo tax alxuraan moo gën yonent bi noonu lag na xasida mel ci sëñ moo tax jëpp war ma juy war ci sëriñ bi rek day war ci xasida yi war ma nag sëriñ bi daf daa wax ne ñett la sa digg ak sa boroom sa digg ak say moroom sa digg ak sa bopp sa digg ak sa boroom li ciy war ma mooy topp ay ndigalam bàyyi ay tereem sant ab dogalam sa digg ak say moroom li ci war ma mooy fexe ba bu leen tooñ mukk te saa yuñ la tooñee nga jéggal leen te yàlla tax sa digg ak sa bopp nag looy bañ ku la ko nettalil boo weetee bu ko def boo weetali ko bu ko def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it am na lu mu waxoon loolu mooy bi ñuy gàddaay ñoom ñëpp jëm madinatul munawwar ngir rawale ji seen diine sunu borom xamal na ko ne am na ñooñ ñu ngi gàddaay ànd ak yéen te li leen tax a jug taxu leen a jug ba tax na mu wax ne képp koo xam ne danga ngaa gàddaay ngir yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa la yàlla ak yonent bi diggee ci gàddaay ku gàddaay ngir ñoom da ci jot waaye koo xam ne da gàddaay ngir jigéen ju rafet. joo bëgg a takk te yëg ne gàddaay na nga ne naa gàddaay kon ngir mën caa jot wala commerce moo jàpp ne fa la gën a baaxe nga ne naa gàddaay ngir am ko boo amee loola perto waaye boo ko amut perte na kon képp kuy jóg ngir jëm ci barab bu ñuy màggale xasida la ca jiitu mooy nga jóg te jëm yàlla rek tax sellal sa xol laabal ko ubbi sa ndabul xol fa séenee taataan ci njariñi sëñ Tuubaa yi nga xam ne yàlla defal na ko ci xasida yi xasida yi nag lépp sëñ bi mi ngi ci waaye jariñoo ko nag am na lu mu laaj li mu laaj mooy wépp melokaan wu sëñ Tuubaa bëggul gërëmu ko ñu fexe caa set jëpp wax ju mu gërëmul ñu fexe caa set jëpp jikko ju mu gërëmul ñu fexe caa set jëpp yéene ju mu gërëmul ñu fexe caa set mooy tax liñ ne xasida yi mën na ko ñu mën cee teg suñu loxo ndax kat xepp yi mën naa dagg garab gi kenn du ko naatable waaye ku ko joxoon gone gu ndaw du ko mën a dagg ngir ak ñàkk kàttanam lay tee nag njariñi xasida yi mën a si ñun mooy ñàkk set ci yooyu yi ma wax kon nag loolu rek mooy fulla mooy mbir yàlla nañ ci yàlla dimbali te defal ñu ci tawféex asalaamaaleykum